بسم الله الرحمن الرحيم ثم لمن على ازدياد ابو القاسم زاد قريش كل اغتيال تختري ترجري 100 انا لك كثيف لك موي مام لا لا فيزيك موي لب لو dégg nga kii moom mooy lu ñu mooy mooy mooy lu ñàkk si lu lu nekk ci état état. brut waaw état brut mais li muy firnde mooy lu tàll. waaw euh, nag boo nooyee nag xam nga lu nooy mooy mooy donc defar nañ ko xam nga ku ñu yar ba mu xam muñ xam yaakaar xam tabe xam dégg xam topp hmm, xam yëfit xam nga bokkut bu bees boo xam ne loo ko laal nga ne ñu may font mais nag ci langage wu biti la bu jëm nag biir xam nga Baye waxoon na ci benn lettre fii gars ñi doon caaxaan ne bu ngeen yoon Medina neen fekk ay jeunes yoo xam ne am nañ sax jabar mais fekk forcé wuñ leen buñ dem seen kër jabar dem nañ ba fàtte bànneex xam nga sa latafa nag day dem di dem ba signal yu ne nañu bàyyi ma soo ko ci koo fi def na nawet la daal jël soo ko yónni sori mu xaw na nu mu ko defee rek mu ñëwaat bàyyi na buggee ma ko noonu doxal dem laa xam nga la baabaa ko mën ne moom kattaafa moom jéegu rek te mun wala dawal waaye xam nga ñàkk ko fi amal ko fi toujours su transport bi nekkee ci loxo koo xam ne vitesse am amul limite comme xaatir xaatir dafay mujj jëmm ji itam nekk xaatir màkka rek du wër nga bu yàgg ba ñëwaat xaatir noonu c'est c'est une possibilité mais lointaine bien des ak ñaar ñu dugg ci fatwaay laaj yeeg tontu Bon, euh, billahi min ash-shaytan ar-rahman ar-rahim. Euh, il est carré de l'émo. Qui fin euh, année 1358 de l'Égypte. Et Madame Baye de faire حجي من نعم. الحج من النار وجماعة جاء في بصنة الباس آه، منف من مدينة كورة أواخر عام من 1900 كافة الأحباب نفعنا الله وإياهم في الدار وقل فيه بأنك محمد خالد بوجيسان وهذا في شرح مسلم هو ده كان ضمن في شرح مسلم بعد هناك لا moo ne lettre bi mbind mi mu mbind mi ngi jóge kooku circulaire yépp moom na mu yàlla nañ ñu yàlla jëriñ jëriñ ñi ñëpp ñoom ñëpp ci àddina ak ci ci daara yi mooy ci ñaari kër yi ويأدناك الرحمة هنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين الحمد لله كفي يب يب يب اللهم وهم نو كفى ترفي الحمد لله والعبد لله يعني من وسلام على عباده المصطفى جامع يا نيب تان يب نك مان جامع وعلى اله واصحابه اهل الوفاء هو اللي اصحاب رسول الله هو اللي فمن ال بيت نيغا خامي نيوي فيدال نيغا خامي ني انغاجي Canela é. Ele barato de ser amiga porque começa mal. بالوفاء والصفاء بالوفاء والصفاء ñi nga xam ne dañuy matal kóllëre dañ engagé woon day dem dañu ñu am dañu sell aleykum salaam fadal ñu ngi door a door wa baax du gannaaw loolu nag gannaaw bu ma sant yàlla wa kafa ak jàmm jërëjëf ma xamal ma fële fële fële fële wax ma ma ne kii dem leen fële ak kii fële caam ñëw fii kii caam ñëw fii ñoom ñaar yoon comme noonu lañ bëgg dégg mu ne wa baax du gannaaw bu ma ne sant naa yàlla te loolu doy na mogatoni julit yonent bi ak saaba yi ak aaloo mooy famille ñi ñi am kóllëre te sell boole ci mu ne baadu gannaaw loolu fa inna awqaat al abdi kama taqarrara an cheikh nee na jaam boo gis sol ci jaam yàlla yi ci la ko sidna cheikh saxalee yaxalee ko ko jaam bu nekk rek millième des situations que nous rencontrons aujourd'hui. وقت طاعة أو معصية أو نعمة أو بلاء بان مونيك مونيك وقتو توب يالا ولا بو مانا بان يالا خيول مونيك جي وقتو توب يالا ولا مو نتوكو مونيك جي وقتو توب يالا ولا مو خيول كو jox ko ak xéewal lu ko bégloo walla mu nattu ko jox nattu lu ko tiitloo mu ne amul nag cinquième situation ku nekkul rek ci xéewal yaa ngi nattu ku nekkul ci topp yaa ngi ci mu ne nag comme loolu la Seydina Cheikh wax mu ne wa aada yi ñuy wax ci bépp position ci ñeenti yooyu mooy benn shuhudul minnati

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا يعني saafay ñi wër yow ak yërëm ko leen yërëm amul kenn ci yéen kuy sell kuñ bàyyee boppam rek moo sell mu ne nag lakin allah yuzakki man yasha allahu mooy sellal mooy mooy mooy set ku fa neex mu ne kon nag ku nekk ci topp yàlla itam teggin gi mooy bu ko tiituroo nag dañ daan sukkandiku ñu nekk jaam buy commerce ak yàlla aw maasiyatin wala yàlla nattoo ko mooy ndigal yi wala def tere nee na aadaabu mooy wëttëngu mooy moom maanaam mooy yàlla ak jadd amul benn garab lu mooy tuub dellu ca tuub mooy rëccu bu dee wax mbaa jëf wala yéene nag am intention nag dootoo ci dem ki ko wax si lax tër yooyu mboolem téere ci yàllaa tax muy wax parce que nit boo koy wax ne dootoo dellu ci def lu bon mooy intention la mën a doon mais nag vraiment de temps en temps nit dina wax dara rëccu ko te mu yegg mu waxal ko nga xam ne mooy lot gi jam lot ci kanamu xaxramaan yi bi nag kon nag ñu jàngal la luy sa teggiin soo fekkee ne dangaa jaate mooy tuub dawaabu zambi wal maasiya tëb yonent ne attaa'ibu mina zambi kaman laa zamba lahu yonent ne nag képp ku tuub bàkkaar boo ko defee tuub yaa ngi mel ku amul bàkkaar su fekkee ne da nga dem ba dootoo soxla tuub ndax dootoo def bàkkaar aw ni'matin mu ne wa shukru minnatu wa tawbatu wa shukru bu fekkee xéwal nga nekk mu ne teggiinu xéwal mooy sant yàlla sant sant sax ëpp na neex sant ko ne alhamdulillah mooy sant bi neex bàyyi mu ne sant ko ci jëfandikoo ga ca loo xam doo ca tapage kenn ko xéewal lu dëppoo ngir ngërmaaneel ka xéewale waaw mu ne ndax boo amee xéewal cramponé ca foog ne yaa ci ne moom la doon wax ne fa kullu niamatin tazul duuna man asdaar balaa baax te di ku ci sa day waxoon ku jël njël njël njël njël ci kuusi ne xéewal bu mu doon bu la bëggee bewloo wala mu bëgg laa fàttali fàttali ko leen dana mësul dañ kala ko joxoon moom du fi kon nag kon nag laa tafraxan bi anoo mi un inta afrax bi man bul bul yaataayumbee xéewal gi ba fàtte ki la ko xéewal kooku sax dafa ñu tegi dégg nga loolu moo tax mu ne kon topp yàlla teggin bi mooy nga gis ne yàlla la ko xewal shuhudu minnati ci seen ci seen vocabulaire yi di gën a pertinent bu dee bu dee mooy tub bu dee xéewal sant sant ak alhamdulilah ak sant ak jëfandikoo xéewal ga ci lu neex ci lu ko xéewal moo tax waaye daamee saxaat yëpp leen ba yàlla ne iamalu ala daawuda shukran yàlla ne wa qalilun min ibadiya shakur yéen ala daawud Suleymaan ak gëmoon ñëpp yàlla nee na seen sant yéen na doo ko jëpp de bàyyi moo tax mu ne xam naa nekk ci làmmiñ mais sukru moom action lañ waaw boo doxoon benn bés Abdoul Aziz Dabakh mi ngeen di dégg borom zahabu iblis ak Abdoulaye Bara seen ànd la ànd bu kawe mu di ko entraîné ci teewlu yàlla mooy def dara ci turam mel ni ku ne nañ dem Sandaga mu taxaw ko mu ne ko laal di jalo ku yàlla benn waaye dafa dëreet nag ñu ko yëpp ca kaw te jëkk am kii ci amee ak gafaka di lëx lëx lëx sëriñ bi daal xam nga waa ji lu muy seet ci biir gafakaam ah, mu ne ko poids bi muy peese fa yàlla lay làmp daje waa ji génne benn daane daane ko ci daal war na moo la vingt cinq centimes yooyu sarax ko waa ji yow bi gis ni waa ji li mu rëy bi li moom dara la bu ñu ko peesee daañu fi lay peesee pour wane ne li ngay joxe moo war a traduire sa conviction ak léegi dem ak li ngay ut. ba tax bàyyi daan ci teg lan alxuraan la hatta tunfiqu mimma tuhibbuuna birru mooy lu baax li kenn mënta biir ngir guddal yàlla leen du ngeen ko am mukk lu may nag bu ngeen di joxe ngeen joxe ci li ngeen bëgg nga xam ne du da ngeen koo soxla moo tax du ñamu mbaam. léegi bugg nga bugg bugg nga ko tey boo ko amoon sol ko boo bëggoon génn mën ko génne nga joxe lekk gi mën ko lekk nga joxe ko xaalis bi du ay dërëm ak yooyu da jox ni lu mu mënta am mu ne jox la loo mënta am eh, yii ak ci daan tànn ne nag aw balaa ba mu ne aw balaa mu ne asabru muñ waaye daan nañu wax ne muñ am na muñ lu baax. lu métti métti te def ko muñ lu baaxul lu mu neex neex nga daw oto yàlla ne innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaabin mu ne muñ nag moom yàlla nee na mooy eh, conduite bi nga xam ne ku mu ko xas may bu lay xëy nee na dootu amati eh, dootu amati nattuwaay wala balance wala wala wala wala calcul bi xëy na xisaab waaw xoolal ma rek commencement wu lettre bi ni mu leen yan bàyyi nag ne wa hada alwaqtu tajalla alxaqu fiihi بما يرى كل عاقل أنه تعالى أراد التعرف لخواص أحبابه في مظهر القهر والمحنة xam nga jamono dafa naxeet xool moom ni lecture xut mu ne xam leen ne nag jamono jii ñu nekk muy 1358 yàlla dafa feeñu maanam yàlla fa mu tuddee xàqu mooy réalité teegaal gi c'est ça c'est des réalités ah moo tax mu indi xàqu nee na yàlla xàqu daf ci feeñu daf daf daf tëddal yi ci la nga xam ne ku am xel rek yaa ngi gis ne yàlla dafa bëgg a euh, présent xaas yi ci ko sopp ñu ci des ñëpp duñ dégg li xel ñu ngay jooy xaasatu ahbaab xasatu ababi mooy soppe yàlla yi nga xam ne ñoom ahlu xusuusiyal yàlla daf leen jagleel ñoo am te itam xaas rek yam xaas dafa am xaasul xaas dafa am xaasul xaasatu xaasati am nag ay degré yu koy la mais boo degré supérieur yooyu nee na xam nga ne yàlla yi xew ci jamono jooju xam nga ne yàlla dafay dafay won boppam xaasatu ahbaab yi nu mu leen ko wanee ci benn apparition benn feeñuwaayu not leen ak nattu leen mu ne wala taxlu mixnatuhu an minxatin wala qaxruhu an lutfihi seetal mu ne kat yàlla mixnatu mooy nattu bu muy teg lu naqari miim xaa mu ta mixnatu mu ne fu mu ko sotti rek xaasatu yow muy xoolee danañ gis ca biir mixnatu bi firi nattu minxatu gi firi may ak kaddu ak xir benn tomb rek mooy yonent fii fii mihanihi minahun wa fi minhatihi wa fi mihnatihi minhati kon nag xam nga mi ngi mel ni kuy wax ne bul xool fa mu tàngee da ngay xool fa mu mënoon a gën a tàngee daan na ko wax daan na wax ne su butéelu meew bi daanoo ak yëpp tuur bul wax genn wàll yëpp tuuru na ne genn wàll yëpp des na ci nga gis ndax mënu fu mu yem rek mënoon na koo passé waaw ña ngeen euh, laa taxlu mu ne xaxaroom itam mooy mbir mu ñëpp jaami kenn mënu ci dara xoolal Amérique ak dooleem ak technologie seen ngelaw yu ñëw naa yoo ay dëkk mu xam ko xam ne mi ngi ñëw xam vitesse bi mënu ci dara daw la kon nag xaxaroom nag ci ay jaamam euh, euh, du ñàkk لطف لطف موي ميريت لو خمني آه، ما شاء الله كنا نطلب من القرآن بين وضعفة الإيمان إمام دفعنا أجليف من خمنا لدينا وقد أوضع من وضعفة الإيمان نسين جميع لنك فابل نيودولي والعقول نسين قل نيودولي نيوم ذهلوا أو غفلوا عن الله ñoom bi yëf yi naqaree noonu ñoom dañu tiit sàggan ba fàttalikoo yàlla bi fi tàngi wa aksaru shakwa wal ictiraad ala allahi bëri lu ñuy tawat cay cay cay cam cam lii ak nag di di def ictiraad ictiraad moo yàlla def dara nga wax ne daal mënoon naa bañ a mel nii ngay contesté alallahi taala wa sas jamono xëy ji jamono cam te yonente mos naa bëgg leen a yeeyee bu am choc na leen ad-dahru allah yàlla mooy dahru yonent mu ne yàlla nee na ana dahru bi yadi layli wa nahaar layli wa nahaar jamono ngeen di xas man a maay guddi sama ah, guddi ci sama loxo la nekk bëccëg ci sama loxo la nekk te xam nga toppante guddeeg bëccëg moomu ji nekk yi bés nekk sa mooy dahru bu yëpp dox bàyyi dahru dahru ndab rek la bàyyi nee na lañ ci tàbbal moo am sax ok وضعفة الإيم ذهلوا أو غفلوا ماذا أقول ذهلوا وغفلوا صح الله دانيو طيب، تي أه ساقن بوليسي الله دي بريل تاوت الكونتستاسيون يعني دي من النقل دي خاص جمعه بين والله ثم والله ما رأينا عشر عشر ما رأى من قبلنا من البلايا من زمن النبوة إلى قريب من زمننا بين جنات يالله تمام كوي وخات جنات يالله ne ñun ci suñ fukkeeli fukkeelu dixième d'un dixième ci ñi ñu jiitu woon ci jamono liñ gis ci ay nattu ca jamono yonent ya di am ba si jamono jii di lu jege suñ jamono ji maanaam kaw juste avant suñ jamono ji ah xam nga ba ngay juju dégg euh, lañ gisoon ñun gisuñ ko jàng di ñu may sax lim defal taar ak taarlu سخمية وليس البلاء من هوان العبد على الله كما يظن الجهالة والعوام جام يلا نتكو تكلو لي يلا دفكو فالي ودي ولا دفا نك صلو تبت يلا كم نكو نيري فوقي اك عامة الناس اللي كم دي مرتل دي يفو نكو يلا نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو نتكو والحروب والطواعين اكثر في زمن الاخيار المتقدمين انا يعني بو فك ني خامي نغي واخ تي ني باخ ني جي دول دغون با سكن اي كير وي رافاج لا تي نيوم دغون با سكن اي مس اي بيست تي تي نيوم دغون بري جامونو ني باخون تا جيتو ني في جامونو دا نكو ديتاي سي فقد قال العلامه محي الدين النووي في الاذكار لان امنا بن سبن تيزم ني واخ محي الدين النووي آه، آه، سيجي لها كم خمخم لا وحنا تيرين بنيو الأذكار للإمام النووي عند بارانتيز الأذكار كير له بو إمام النووي داجل آه، نياني يونو تأكسي كامي بري في قصوة كباي بري لك مويتو كي تيرين دفوتي بلا شمي با بس كنا بو جانب يعني نيم نيم ناني تيري بو سو جفنا تي كوكو بو جانب كبيرين تيرين Sementar Yuba lagi pakai. benn volume rek léegi waxal ma ñun ñi nga xam ne ku koy boo kali, ngi jàngal ci yow jëriñ ci waaye def barke la dama dama doon wax ci Thiès ba ci démb dañ ma invité woon ci njëgën kër maam alaaji kër maam alaaji foofu ci belum juga pas. Kau juga foofu di boolum ñoom mooy on rêve ñoom ñi nga amee risque ba léegi nee nañu fii la daloon fii toll fii daal xam na fii la nekk ba ne eh, am na benn benn témoignage boo xam ne gone du ko fonk mais pour ñun c'est très sérieux euh, mu ne seen seen bàyyi nee na leen maam alaaji lam fa nekk yëpp mboolem waxtu yi juróom ci jumaa ji la ko ci jàkk ji la ko jullee da koy information bu ndaw jógee ci tukki bu soree noonu moom ay amoon na yoon euh, nekk ci safar ñu dalal la fii ngay ki nga doon mais dara cuma jaral ba alors foofu ma ne leen la ma bëggoon ñu boole ci waxtu ngeen xam ne barke ak barke am rek mooy fii jox leen ci ay tëg dégg na bon mu ne wa laysa al balaa min hawaani al abdi ala allah te ñëw tekkewu ne dafa ñàkk solo fa yàlla dégg يقضونه أذكار كلا وحنا هنا يعلم أن البلايا قليلة بالنسبة إلى ما تقدم من إيه نبتي المصيبي وياك وياك لك سكرا في سين جمعنا جدو ممكن دينك إستوار فقد كانت الطواعي المشهورة في الإسلام خمسة طاعون نحن أمنا أي كاستيونيو أنريشتر إستوار الإسلام yi ca siiw juróomi jamono yu peste am ravagé société musulmane ñu baax na ci am saaba benn bi ñu koy wax Taawunu Shahrawayhi man Shahrawayhi baatu persan euh, colonisé woon mais nag ci Iraq la bokk soriwul sax Bagdad gis nga li ngay di ñuy wax Iwaanu Kisra foofee la nekkoon ci léegi nag ñu ngi koy wax ci jamono ji Pape Isra Pape Isra wala euh, foofu lay suul Xusayfat ibnul Yaman bii yoon tur yi munaafiqiin yi ci kenn xamu ko noonu dañ ko daan wax sax mooy saaxibu sirri moo mooy borom mbootu yonent bi xam na ci boobu roq moom ña ngi ko jihaatu ko yóbboon Iraq di jihaatu fursi yi foofu la anu foofu la Kisra anu Shirwan nekkoon foofu lañ ko dàqee na ko jaa Muhammadu bañ ko demee at loolu foofa euh, foofa moom lañ tuddee am na benn peste boo xam ne foofa la gënoon a siiwee kooku booba ci jamono yónnante la parce que c'est l'an six di gàddaay taawunu amwaas ca ci côté Syrie booba romains yi ñoo dominé foofa boobu taawunu am na benn bés ñu compté

am nag taaxu moom la ñuy wax taaxuuna amwaas parce que ñu ne ah. do doomam moo ci dee. moom moo ci dee wala doom. maata fi abu ubayda ca la des abu ubayda ibnu jarrah li tax ñu tuddee ko taaxuuna amwaas peste amwaas. ñaari baat def ko benn baat. ammi waasi ñu ne xale bu gis mag ne ko ne ko ne ko. ñu boole nag am ak waasi ne am waasi. ak taawunu jaari kooku zama zamano abdullah ibnu zubayr la ba tey sore ñu ne anas ibnu malik comme dafa bëri woon i doom foofa lañ def ci ci ci ci ci peste boobu 83 xam nga anas bu bu mu leen yëm na ma anas ba yaayam ak indi woon ci yonent bi mooy xale bu ndaw dénk ko mu am ci loxo yonent bi fukki at di liggéey ak seen rek bés wax. wax na ci jikko yonent ju rafet nee na liggéeyal naa ko fukki at musuma ñàkk def dara mu ne ma lu tax def musuma tax nga def musuma dóor musuma dóor benn anas baax na lool te lool te loolu moo am en tout cas daal euh, ànd bu yomb la mais lañ cee jàngee mooy euh, njuumte warul yàq ànd na parce que ak nite ko la aw salaasa wa sab'una maanaam 73 la ci dem yàq ba tey musiba wa maata fiihi li Abdurahman ibn Abi Bakrin arbauna ibnan Abdoulaye ibn Abi maanaam euh, ay sëtu Seydina Abu Bakr 40 yu gën góor yu leneen ci gëstu Anas nag bëri doomam gi laa leen bëgg a jënjëf yonent bi ñaanaloon ne ko yal na ko yàlla may fan wu gudd yal na ko yàlla may njaboot ku bari. kenn ku yàlla may wërsëg anas nee na ci diggante sumay doom ak sumay sët gis naa ci lu bari te mu ne dund na téeméeri at ak xaw ma lan mu ne te itam euh, garab yi nit ñi ji sax ci at benn yoon moom bu ko bu ko ñaar yoon lay meññ ci at garab ordinaire la sax daf bi barke lu am la hmm. nga ko connecté mbaax foofu la yem quarante tëj ko musiba la wàcc wa kaana yamuutu ahlu daari kulli kullihim fa yutayanu alayhim ulbaax daa ngay toute une famille bu bu bu peste bi ravagé ñu fa fatt fa fatt buntu kër bi bàyyi leen ci biir dégg wa dalika fi sanati arbain wa sittina booba yàggagul ci soixante soixante quatre rek de l'hégire la nga yàggagul boobu dèjà ñi jul julli egg si nañ xayrawaan ci Tunis mm, il y a il a quatre ans il y a il y a il y a il y a jaan dégg daf bëri ba nit lu ko jaaxal sax mun a jinne ñu ne ñu ne ñu ne pest jinne yi la taawunul fatayaat am na peste bu ñu tuddee woon peste jeune fille boobu at moomu quatre-vingt-sept la dana gir dina ko répété ci kanam ndax daf moom la jàpp ak taaun boo xam ne ma nga 31 daan nañ gis ci benn avenue bu ñu tuddee sikkatul muridina nga xam ne déjà mi ngi lay wan kolo ko couleur bi ñuy maanaam mbeddam mbeddam sufiyanke yi ah, foofu daan nañ gis benn bés rek junney niiw suul nañ ko ci bés bi ndax am bés bés bu njëkk ba sax nee na soixante dix mille ñu njëkk a dee ci réew bésu ñaareel ba soixante dix et quelque ba su ñetteel ba ñëpp kenn yëngatootul ñëpp Muhiddin moo koy indi ci histoire de l'islam te moom aalim la muhaddis la du sax historien simple waxam daf koy peese mu ne wa kaana bil kuufa taaunul fatayaat tudd na ko fële mais fii la amee taaun fa ci kii bind la taaun fatayaat mooy maanaam peste bi nga xam ne xale yu jigéen yi ñoo ci gënoon a dee lenn bu bada bil adaara jank ji les jeunes filles ci ci ñom la commencé ci basra ak wasit ak sax joggé ci iraq dem ba sham joggé ci kufa paté ñu ñëwaat ba sham da dara ko itam pestu shurafawi yi shérif ndax nah, ña ca dee ci nit ñu tedd ñi dafa bari wolam yaqa deglul fil angon tàggu nag màkk ben kess pes jàpp di ñew yalla dafa man terewul bu ko neexee léeg-léeg am na bés nit ñi nekk ci jëm ak seen tànga yàlla soppi jaww ji taw ay glace ci seen kaw nit ñi mel ay weñ yow waxam tëjël li benn ويقال طاعون الأشرار لما مات فيه من الأشرار ولم يقع في الحرمين طاعون قد انتهى لما دون من لم دون كي لم دون سيتي كي téere nawawi bi foofu la yem askar nawawi la qaala wa man zanna anna al balaa yanzilu bil abdi ku foog ne nattu da ak taaxul boo xam ne ma nga amoon atam cent trente nañ gis benn avenue bu ñu tuddee sikkatul muridina nga xam ne dèjà mi ngi lay wan kolo ko foofu daanañ gis benn bés rek junney niiw suul nañ ko ci bés bi ndax am bés bés bu njëkk ba sax nee na soixante dix mille ñu njëkk dee ci réew bésu ñaareel ba soixante dix et quelque ñetteel ba ñëpp kenn yëngatootul te din moo koy indi ci histoire de l'islam te moom aalim la muhaddis la mu ne wa kaana bil kuufa taa'unul fatayaat tudd na ko fële mais fii la amee taawun fa ci kii bind la taawun fatayaat mooy maanaam peste bi nga xam ne xale yu jigéen yi ñoo ci gënoon a dee lennahu bada bil adara jànq ji les jeunes filles ci ci ñoom la commencé ca basra ak waasit ak sax jógee ca iraq dem ba cham jógee ca gato cham da daanañ ko wooye itam pestu surafaaw yi shérif yi ndax ña ca dee ci nit ñu tedd ñi dafa bari walam yaqa déglul fil xaramayni taaxuun lam tàngoon tàngoon nag màkka nga def benn bés tàkku ñëpp di ñëw yàlla dafa am yërmande na bu ko neexee léeg-léeg am na bés nit ñi nekk ci jébalu arafaat ak seen tànga yàlla soppi jaww ji taw ay glace ci seen kaw nit ñi mel ay weñ yow waxam tëjël libéral قالوا طاعون الاشرار لما مات فيه من الاشرار ولم يقع في الحرمين طاعون قد انتهى منام انتهى لمدن من لمدن كي آه، لمدن آه، سيتي كي تيري النووي بفوفليم تذكر النووي قال ومن ظن ان البلاء ينزل بالعبد كفوك من النبت دا واتي مقام الجامد بدعة فأعلن يعني على العبد كيف نحن وقع على العبد mooy dal na amul werante dal na mais nag yanzilu bihi mooy mooy maanaam dafay wàccee dafay wàccee daraja maanaam daal comme la ma waxoon bu njëkk rek la ku foog ne mm, musiba day wàccee darajay jaam nee na kooku jaahil la kooku xolam gumma bal yublal abdu bu la neexee yublal abdu ala xasabi diini yéen a ko nit ni diineem toll dëgëre noonu la ko yàlla nattam ku yonent ne woon alayhi wasalaam man su may sibiru uuaku kama yuaku rajulaani min ñaari sibiru lañ may teg man yéen cinquante man cent yéen cent man deux cent sibiru moom ndeysaan góor bu baax woon ci misra cheikh moom xaafis mu ne maa mu ne mu ne géej kooku moom lay waaw qutila lolu da ko don wax pour lalal li di ñëw faqad qutila usman wa umaru wa ali wa ibn zubair wa ibn jubair wa ibn musayyab jaldan bis siyam sang yoy ma tuddu moy usman ibn affan dañ ko ray tek mi ngi tiim alquran daraja turu ci kaamil ba tolloo fas yëg fii ko rewul yalla bàyyi na ñu egsi ci waaye nag lañ bëggoon ñom amul bi usman gëmoon mo dess mo ñu bayyi fii tëj amoon na nag lu xew ndax na Ousmane bi ñu ko bi ñu ko bi gaa ñi ñëwee euh, ñu jaxase réew ma ba révolte am ñu ñëw ne dañ koy rey wax wax wax wax wax mooy ne baax na ma rayee dootu leen julli ci gannaaw benn imaam mukk ne yonent ko yar daf koo gërëm te yàlla sax yonent ne ne yàlla dafa am kersa ci Ousmane ba ñu ñëwee si naaw yu yebal ñaari doomam Xasan Xuseyn ne leen dem leen ngeen garder Ousmane mooy leen dem leen kenn mënul ma sooyte lu tax mu ne kuwatu bi maanaam fenêtre bii yonent yóoru na ma fi ne ma tey yaa ngi or waaye maag yow ay dogandoo ci aljana kenn mënu maa tere dee ci bés boobu lañ koy te maanaam nattu yaa ngi doon mu ne xanaa kay baax kay parce que Ousmane wa Umaru dañ ko benn xale ak bu bu dëkkoon Paris kon ndekkee xam lu mu wax moo ko naqari waaye xam ne tuub bu duutoon dëgg rek la ci mazhab yooyu ak Zaradusht yooyu xam ne seen affaire leer la euh, moom moo jëm bu ma bu man ne mbaa ci mara yi musta sujjóotal yàlla ñu ne ko dee alhamdulilah amul lu mu lay def. ko def dara fekk deewul su ma dundee man maa xam nu may defal moom euh, su ma dee nag àtte euh, leen ko àtte mu fekk mooy ñu leer ci tamit. mu ne ko Aliou dañ ko rey Abu Lu'lu'ata moo ko rey ci mihraabam ñu doon jiite fekk guddi googu fitna def bari woon ba nga xam ne ñeenti nit ñoo jël décision ñeent ñi nga xam ne ñoo indi coow li ku nekk kenn rey la naa ñu rey ko waroon rey Muawiya waroon na rey waroon na rey mais euh, Sina moom ci la des Ibnu Zubayr Abdullah Ibnu Zubayr non seulement Hajjaaj daf ko reylu ci pant daaj ko yépp ko room te moom ku ne xam na ko ku ko ñu yaayam asmaaw bi tëb bëkkri dafay dem di julli ji romb doom bi ñu ko daaj crucifié ko bés mu romb ne waay waay waay gawar bi du wàcc nagam kenn mënu koo du pas mu yàlla may dégg nga ibnu jubair saaba yi gën a mag la dañu ko rey ibnu musayyib dinañ musa toog wax moom liñ ko cravage ba ba ba ba mbaggam yi soqi waaw mun mënatul ci boppam radiallahu anhum intaha loolu yëpp nawawi moo ko indi ci histoire réelle بين وعلى هذا فالذي أوصي نفسي وأوصي به أحبابي هو الرضا عن الله تعالى والشكر له والصبر لمجاري أقداره والتوكل عليه في الرزق كرهوا لك من من من من إبراهيم ياسر ñu ñu ni man Cheikh Ibrahima Niass li may dénk sama bopp di ko dénk samay soppe mooy gërëm li yàlla def waxtu wu ko defee sant ko ca ci ñaari maqaam sant yi muñ ci dogal yi seen ndawwaay ndawwaay dogal yi maanaam la muñ dogal yi te nag wàkkilu ci yàlla ci lépp luy wërsëg parce que itam problème wërsëg lu lu mët a bàyyi xel moo tax ulama bi ne ba yàlla ne jaamu ma moow bàyyi dana ko wax sax ci kanam di nga ko gis dalal xel yi wane ne wërsëg moom maa ko gàtt parce que wërsëg rek moo mën a yàq jàng mm-hmm. eh, yàlla mu ne wax na ci alxuraan wa fi samaa'i rizqukum samaaw foofu mi ngi firi taw déggoo naa nag asamaan boo demee maa ngi si ñaari cee ko ba ne ko wax d' accord waaye nag ci wax yaa moom fii tawla samaaw bi ardi qawmin raina fa nekk mu ne wama tuwaadoona leef dig na leen ko fa wa rabbi samaay te giñ naa ci borom asamaan wal ardi borom suuf innahu la xaqun liñ leen dig ci àlxa nga waat ne dëgg la mislama annakum tantiqoona comme ni ngeen di waxee rek werantuwel ne yaa ngi wax ñii di ko dégg noonu li alquran wax dëggu ala wama xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun ne yàlla wax na ne binduma jinne binduma nit lu mooy rek rek rek rek ngir ñu jaamu ngir ñu nangul xam nga abadahu mooy nangul na parce que ibadatu mooy nangu bu amul bu amul bu amul bu eh, amul réserve moo tax sax yoon muy gudurale ci wax yaaram da nga naan tariqun muabbadatun wala muabbadun gudurale mooy nangul parce que dégg yoon muy tawat oto jaar ci kaw وقال افتكروا الادب ني بيان ني خلقت ذا الخلق ليعبدون من اي في الرنجل من ابن عباس نينا يعني بيعبدون يعرفوني من ابن عباس نينا ليا رجبلي تي بور ني جامو ما مو ما بور ني خم ما نورمال ما جامو خم باخنا سي لول باينه وقال ابن عطاء تنوير امنا تيريم سي ندو سي ني وقت تنوير لما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني علم سبحانه وتعالى أن لهم بشريات تطالبهم بمقتضاها تشوش عليهم صدق التوجه إلى العبودية فضمن لهم الرزق كي يتفرغوا خدمته وكي لا يشتغلوا بطلبه عن عبادته سنتك ابن عطاء الاسكندري طريقة نخشاز لي من شيخ متياني ريكونس na valeur وقت وقت wax waaw nee na ak mooy xikam yaakaar naa ne moos géew bi du sotti te jànguñu xikam ndax bàyyi kii bi daan jàng mu ne Seydina Cheikh nee na kàbbar jullee lu dul alxuraan su daganoon kon xikam foor na foor goo xam ne ci waxi nit wax waxi nit waaye du jullee lu mooy alxuraan kooku nag moo ne bi yàlla waxee aaya jooju nee na dama bind jinne dama bind te jinne dama nit ngir ñu jaamu ma mu ne ba yàlla xamee mu ne yàlla dafa xam ne nit ñi dañoo am ak nit ak nite ak nit koo xam ne moo leen di exiger lu dëppoo ak nit maanaam nature nit mooy dafa soxla lekk lu mu jàpp ak lu mu kii nangam nangam lu wërsëg bu ko amul dafay dafay jaxase seen seen jublu ci yàlla gi war a jublu ci jaamu ko yàlla gaaw nag garantir leen wërsëg pour ñu mun a farewoo nag liggéeyal ko ndax liggéeyal wërsëg bu mu leen soxla wala liggéeyal jàngal taamu leen ma maa leen bind te e, waaye nag soxlawuma risque ko ci yéen ngeen wërsëgal ma soxlawuma ngeen jox ma ma lekk man du ma lekk man maay raza inna laa huwa raza inna laa huwa razuq rek doy na mais razaq nag mooy maanaam superlatif la ci wërsëg maay wërsëgalaa koon te ku xool rek gis moo tax bàyyi doon ñu nett ni euh, Fudayl ibn Iyaad ba ko xaritam ba tàggoo ne dafay liggéey yi moom dugg ci réew yi fàggu dara ñëpp ñu tàgguwante ñaari fan rek waa jën toos dellu si màkk Fudayl moom ak ne ko mu ne ko ah mel daal ci ñun ku ko sa projet bi nag mu ne ko man kat dama doon nopplu ci ron ak garab rek gis fa loo xam ne ci laa xamee ni yàlla du ma loo ko gis man dama gis benn picc moo xam ne gis naa ne daal gisut may xalaat kii moom nu mu ne benn picc ñëw rek dali koy xontu suuf mu naaw dem ma ne ki fàttewul picc mi du ma fàtte xaaral wax ji jub na théoriquement fa doy na ko ab léegi pour nekk picc mu gumba da ngay liggéey pour nga nekk picc moom nga xam ne jurit bu ku mën nga xol ci ko yow te continue waaj delu ci bon mm, mu ne ma uridu minhum min risqin ay ma uridu minhum an yarzuqu anfusahum waxul sax ci niñ ko vidéo léegi ne bëgguma ngeen wërsëgal ma déedéet mu daf ne su ñëw ma leen pour ñu wërsëgal seen bopp jaamu rek laa leen sax manam jaamu xam mooy nangu yàlla ci wërsëg sax dina ñëw ci jaam parce que daf ne yamalu jëg leen ne ne ne antum tazrauna wa nahnu zari'una ci affaire mbay ne famshu fi manakibi awkum rizqi wër leen uti wërsëg wax na ne ba mu xatee fii alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ah bu fii naqaree xanaa àddina yaatuwul ngeen immigré donc topp yàlla sax moom mooy fap indi wërsëg waaw topp ndax yàlla buñ na topp ko rek xam nga jullee ci njëkk ak wéetal ko mais ndigalam yëpp euh, yëpp ay topp yàlla moo tax ci la bàyyi doon wax ne lii li yàlla santaane mooy jaamu arkaan yi mooy farata yi waaye nag nit dana topp arkaan yi ak naafile yi ci yéeneem ju kowe ma nga xam dana mujj sax dootu am jëfi aada jëfam yépp jëfam yépp day doon jaamu yàlla lu mu def rek yéene ju kowe ja day tax moo tax yonent nag ki takk jabar bees di neexal jabaram kontaan ci moom tibb jox ko mu sax nee na tibb boobee mu sax jabaram خد واجب وجالا من من يارد في كل أريد منهم من رزقين أي ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم سير ورزق ما كو كان جفل من الوحرك كني ما لنكو أخي يستسفق منه لاتنا من ما كي كي كونغو تابين يجيبوا تجمع كونغو كونغو أنا ما هو هذا نعرف كده وا كان كي دفعي هذا يا خبرين جل الجورنالي فين فوقني مهم جماعي كاسيا دو كركري ba waa ji ferop fi sàppi na ko te nag mi di jot na mu ne doom xel ba du ma leen bàyyi naa Cheikh yow ne la gars yi gasal ba ngoon man daal maa ngi dem ñu ne ñëwaat semence xool benn nombre jëmmaan nombre ki fa am lu yàgg yi ba dem ku bees ki moom moom la ko yàlla jox ok ça c'est ça c'est positif xam koo xam ne moom fi muy seetee jamaa foofu ndox la mu mu for nag benn xeer xam nga koy seq.

ci nag fegal bi gën a rafet daal wa bi wujudi zamaani te maa ko garanti wa ma uridu an yut'imuni li anni ana alqawiyu samad alladi laa yat'am soxlu ma itam ni ay bi wax ñu leyal ma jox ma ma lekk ndax man non seulement maay xaw yu ma ci waaye maay samat samat mooy mooy mooy maas bu amul lëm أن يطعم الله ورزاق ولذلك عقبه بقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وطغي على جيخ الآية يلا أمو الورنزي موي ورسك لا كون بي موي كبرم كتن لي موي كدقر أي ما أريد منهم أن يرزق أنفسهم لأني أنا الرزاق له ذو القوة ومن له القوة في ذاته غني ويطعم يلا نينا ما أم دولك تمنا mu ne nag ku dooleem jege ci jëmmam uti ko ci keneen soxlawul muy leel leel boppam wala keneen di ko leel to yàlla lépp mu bàyyi ne fa tadammanat hadihi al ayatu damana lil abdi bi wujudi arzaqihim euh, lil abidi mu ne aaya boobu nag moo yóbbuwaale moo lamboowaale moo continuer ne yàlla garantir na jaam yi والزم المؤمنين ان يوحدوا ما لم لين نك توب دا خامني مو موي سين سين سين تاش مو لين وار موي نيو ميتلكو كي سوت ميرو ورسا وان لا يضيق شيئا منه ولا يضيف شيء منه الى خلقه تو ورسا نانغ فاي اب كي جيب دوك مي بوين كو مومال دي ديف تي الله جوي وان لا يضيف ذلك الى اسبابهم تصف نين سبب لو مي بوين واخنا سبب يي مولين ماي imaam imaam Cha imaam Ghazali ci tawxiid wal sunna nee na même euh, ashifaaw inda dawaa la bi bu faj la ci waxtu woo mais du garab gi moo la faj ndax lu faj nit rek àll nit wa an laa yusnidu ila aksaabihim te nee na itam buñ wax ne seen faggoog seen góorgóorlu moo tax ñu am la ñu am ba tey itam mi ngi ko jëlee ci kooku euh, maanaam Ibnu Ataillah Sakandari mu ne intaha bindin la nag ci borom xam-xam njëkk yi lépp lu ñu euh, cité ko ci source waa jooju day doon source bu dëgër ba pare fam yem dañuy bind alif ha wane ne intaha comme point final yooyu wala noonu ñuy jeexale ni xam la muy wax fu mu commencé ak la mu toxal fu mu yem bokk def as chiffre ca march ba na seetal kii naa ngam yooyu wóor d'ailleurs sa américain yi ñu ngi dem ci yow étudiants yi dañuy indi comme une image. Waouh بين والمؤمن يحمد الله تعالى إذا وجد قوت يومه فتي من كدف المنجد جمعنا فرع من والمؤمن جل يحمد الله تعالى إذا وجد قوت يومه الله ديمون سبير بكر كر كر وجل أو خير تك تدار فرمونا تغرب وكان احيانا لا يجد من الاكل ما يملأ بطنه عندنا امل مص بيد اسبيرم دسوب دسو ويبيت الليالي المتتابعة قاويا واهله لا يجدون عشاء ام نسخ اي بدي يتقلو ينتي كيف لي فناني بين امر يريري ولله در القائل بعد كي وحيمي وكما مباح من من واجد دفن من كل سيت فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم فقد جاء فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها من واجد دفعهن سفكون أدنى لألي تيني كل فلو باح تجامع من كن تنكت في أملم أن يبنس ما يلتد نتيون بدينوك mu ne mu ne parce que àddina da ngay gis ne ay yónent sax xiif nañ fi te ñoom la yàlla teral te loolu sax teraanga la ndax natt na ñu muñ te pourtant biir yi bàyyi ma yaa ngi fees ñi bàyyi may dëgg mu ne waaye mbaxi lil mumini sidqu lujui ila allahi wa kasratu tadarru ilayhi nee na jullit li ko war mooy lam ci yàlla nekk lu dëgg ci te itam mu bëri lu muy toroxlul yàlla wa duaa bi lay te di ñaanale di ñaan yàlla pour mu indi ñu yër yër pour ñun ak mbooleem ñi nekk ci lislaam mu teg ci nag xam nga yonent ay salatu salaam mi mu waxi mësul occulter problème réel daf koy traité comme réalité nu mu koy nu muy dimbali ko yàlla à part góorgóorlu indi nag l'autre dimension loolu moo commencé léegi mu ne del ñaan pour yàlla indi jàmm hmm. te wa bi ma warada ani nabi tey gàllaajo di ñoŋal sa bopp ci liñ jëlee ci yonent bi ci xeetu ñaan ak yuy gàllaaj nit sallallahu na xusuusan bi salaati li ma uxliq rawatina nag comme jamono dafa naqari yépp ngi taw wax naa leen li xew li mus fee jóg yàlla ñu may sax lii léegi boole leen ci ñaan yi commencé leen salaatu fatixi ma فالنبي عليه السلام مفتاح الرحمة والخير في الملك والملك يعني يون الدميغة من كمام غي جولي روات من سات الفاتحة موي تابي جيالي دي أبير ما نيم أك يو يمو يجوح والملك ملك وملك وجوك ولا بأس بحفظ هذه الصلاة على النبي وإنك نور خمني صلاة على النبي لا كوكو مونا موكل من كل روح نيو عجمي خمنا وقتنا أمن جلي كوكو مونا موكل نانكو موكل وإن كان دون الصلاة الفاتحة في مراحل عديدة نان يعني جيما نفسي جولي تيون تقوم جولي لمن جيجي وتيك في صلاة الفاتحة من كوكو مونا موكا نسان باق في آه، من غير صلاة الفاتحة فخذكر الأشياء أن من قالها في مهم أو نازلة ألف مرة فرج الله تعالى عنه مونا سرين كيف كو خامني جانغ فو ولا دفع أم قو قو بمك بوات يونغ جانك بيرير ديني يا هو دارك ما هو له تلر تيتلو يا رب كوي دبار مسلكو وي ومن أكثر من هذا زمن الطاعون أمين منه même question yu doon wax ak épidémie yëpp fu mu xew ku bari loo koy jàng moom saraatu boobu yàlla dafa lay musal ca feebar yooyu xew wa inda rukub al bahri ku koy jàng fekk yaa ngi dugg ci gaal wala bato wala kii yaral fi musul ci ay géej doo lab min al gharaq ila ghayri dalik mu ne yu bëri la sax ñaan mooy rek اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتدفعنا بها وتدفع بها عنا وترفعنا بها عندك اعلى درجات خيرات في الحياه كبار الناس يعني دي موب دي غيري خمنا ني يوقج نتي داخل موم دافنا ني يالا يوبو نتي ميلو يرافري لنا جولي تي سيو سانغ بي محمد جولي غو خمنا دا دا ني سي موسلي كي مبولم تيتي اك غاكي فاجر ني شا مبولم سخلا يي لابو ني شا كي مبولم نياوتي في يكتي ني شا فايو ci daraje yi gëna kawé fa ñu ci mbooleem xeetu yiw yi ci bi ñuy dund ak gannaaw dee kooku mooy salaatu mu ne wa hadi alxasaais allati nadama baadu alulamaai amaanun liman xafidaha ba tey itam des na mu wax kii xam nit mën na ko saisir génn ko bu ñëwatee ku ne jël sa nusxa dem di jàng la hmm? beneen bi mooy mu ne dafa am yu yàlla jagleel yonent bi am na ku ko woy mu neex a mokkal nee nañu ku ko jàpp soo ko mokkalee safara wuy lakk wala sàcc walla xew-xew yu bari yàlla dafa ci musul te ci yonent la maanaam ci ko yii yàlla jagleel ko yonent muy spécificité mus la gëwénte waxuma gis gëwénte waxuma ruya maanaam mel ni ku gëwéntu ànd ak jabar ba gëwéntu doon gëwéntu mus ko def xat waaw ta bépp li yonent bi ma tasaaba aslan te musul jub benn mala mu daw ñëpp ko miin buur falam tahrab min uddawaab falam tahrab wa ma waqaat subabatun abadan weñ musul dal ci kaw yaram wi benn yoon ci yaram wu rafet woowu bi xalfihi ca gannaawam bu jubloo kanam ka amaam yi ni ki kanam la moo wax ne su ma kabaree bay julli nekk xibla dafa leen sàpp yi de ndax ni may gisee sama kanam société wala yuraziluhu fi shamsi lu jant bi tàng tàng tàng moom amul ker leer dina am ker kat kat faahu qad alata qawman ida jalasu taa yu ñim nekk lu mu mën di doon buñ toogee daal moom moom ka a wi da nga koy séet moo fare ko maanaam surtout ak baatin nga dafay fab génn ci biti عند الولادة الصفية ذا بمختتني بكو بمو gane manam mm, dafa fekk eh, manam amatulen non la juddu walé هذه الخصائص فحفظها تكون امنا من شر نار وسراق ومن محن لان يوي يا لا جاك لي نجمي جاب كوكا بوكا جابي رك الف يال دف المسل تي لك مسل لك سات اك اي مصيبه انت ما مستغيون تكين نوكت نيوي إيه، مسل بيب لي إيه، إيه، مالا مسكو داو ني راغل وين مسكو دال تي يالا مو رافيرو دافاي جيس كانامام كوم نيم بوكو تيمي تام دو ام كير نيوم توغا رك سود لين yokk nañ ci xasaay si bu ngeen waa ñu ne la bu ngeen àndee di dox yow da ngay góorgóorlu moom muy dox ndànk waaye moo lay jiitu yaa loolu dafay tax yàlla dafay musul ci tiiti àddina ak àllaaxira ko buggee nag nee des na eh, eh, mooy eh, nga wax ñetti yoon boo xëyee نيت يون بوغونتي بعد يي أعددت لكل هول ألقاه في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء وشدة الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني لي دم كوكوي وحكي سوبر يبتيو ليكو وحكي نقول يبتيو يلا كل حركة وسكون بسم, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء انتهى ما luy ما it موي كان nga boo xëyee wala boo gontee bépp tiit boo xam ne war naa dajeeg moom ci àddina alaxira préparé naa ko maanaam ngànnaayoo naa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bépp jàqare ak naqaru xol maa ngi koy préparé macha allah lu neex yàlla mooy am wala kulli ni'matin xéwal bu ma am nag maa ngi ko denc alhamdulillah euh, facilité bu ma am su ma wala jafe-jafe bu ma am maa ngi koy denc ashukuru lillah maanaam ba tey sant yàlla. wali kulli ujuba kéemtaan bu ma mës a gis itam bu ma naa gis rek maa ngi ko denc subhanallah yëpp ko delloo ko yàlla nee na bàkkaar bu mu mun di doon maa ngi koy denc astaghfirullah musiba bu mu mun di doon maa ngi koy denc inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xat-xat maanaam jafe-jafe bu ma di am maa ngi koy denc hasbiyallahu yàlla doy na ma nee na dogalu yàlla bu mu natt ak bu mu wéel yëpp maa ngi koy denc tawakkaltu wàkkiru ala allahi top guma mu meuna defi wala moy guma ma ngi fane ci la hawla wala quwwata illa billahi al alil azim bépp barke bu ma am non bépp yëngatu bu ma am ak ak dal bu ma am lu xew rek ma ngi ko ci bismillahir rahmanir rahim bismillahir ma sha allah la hawla wala quwwata illa billahi al azim foofu la ñaan gi moom suba da fay protéger nit ma sha allah nema na bi ni wa dikru bi kulli anwa'ihi nafi'un lil abd xeetu sikkar bu mun di doon lu jë am njëriñ la ci jaam bu ne aajilan wa aajilan daf am njëriñ léegi kon nag yi mu doon wax mun na ci dugg wa aajilan ak yi ñëw sax foofu mi ngi ko daan génne ci fii yàlla waxe ne yow doomu aadama euh, ci euh, euh,